gannaaw loolu dégg nañ liñ ci wax c'est c'est c'est euh, naka ngeen di def tamit euh, ba dajaloo nit ñi euh, bokk gaal di dem fay bi recrutement bi wala kan ngeen di wër ba jox ko xaalis nu muy demee no affaire yi moom comme man mii tey bu ma xëyoon ne damay dem naka laay def dafa am passeur dafa am koy gérer loolu yéen naka. ñaata ngay jëm xaalis de. oui je veux que sa ku courtier. oui je non je veux comprendre comment est-ce qu'il se retrouve. non c'est-à-dire sur une période aussi. Mhm. ñaata ngay dox pour dem déjà. oui parce que. 100000 200000 500000 1 million. 600000 500000 voilà 500000 400000 200000. mooy waxaale quoi. ba ci cent cinquante mille parce que bu dee yow mi nga xamante ni mool nga yow ay deux cent mille cent cinquante mille bu dee ki nga xamante ni xamul dara si géej kooku six cent mille cinq cent mille te gars yi lu ne la leen di jaral ñu def ko fay ko gars bu dégg naa quand joxe na six cent mille moo benn frère am te aussi frère am ba fa la des moom ñëw na. Hmm. wax dëgg yàlla xam nga ni loolu métti na. Hmm. un million deux cent nga def ko yaa ak sa frère te demu leen. Hmm. boo arrivé ñaata bés ngay def si gaal gi pour arrivé jóge fi jóge jóge point de départ ba point d' arrivé bi ñaata fan la pour fii ba fële waaw boo jógee Mbour par exemple war a dem Espagne ci mm-hmm. gaal gi mm-hmm. ñaata temps ngeen di def non bu sa yoon leeree rek te ngelawul ak yooyu mën nga ko def plus de huit jours wala sept jours huit jours oh. juróom-ñetti fan fan xam nga ñetti fan c'est un suicide euh, du suicide non non voilà Charles balaa ngay dernière chose mm-hmm. loolu ngeen di def noonu